Ablaye Dam mii jëwriñ ji ay kàddoom da ngay dégg mu ni li may wax maa ngi koy wax ci kilifteefu sëñ Moustapha Mbacke imam ak sëñ Moussa Dieng moom mii doon taalibe sëñ Fallou Fall bi sëñ Mourou Amine jiite kër sëñ Touba ci Milan sëñ Ibrahima Ndiaye mii di sëtu sëñ Babacar Ndiaye Thiagane moo yor kàddu daal sëriñ am gay mën ak sëñ Maam Dame Thiam mbokk mbokk ñi xam ne ñoo yor bureau bi Baye Bass Mbaye mee ci ginnaaw moom mooy secrétaire général bi ak Baye Cheikh Diop ñoom ñooy mag ñi ànd ci ak comité d'organisation bi Pape Gora Fall ak mbooleem taalibe bi fi nekk yëpp rek kuréel gi doon jàng léegi mooy kuréel Touba Milano ak sëñ moon ñag moom mu jógee ba Brescia amoon yéene ñëw yëkkati bi xasida ci biir jotaay bi donte Milan la ñu wax waaye am na yeneen daayira yoo xam ne ñu ngi fi jóge ba lekk mel na sëñ Abdou Mbacke Fall mii xam ne suñu dégganteeg ñoom mi ngi mel ne nga jógee Touba jëm loolu lépp na fukki daayira ak juróom sëñ maam moo tuddee ñu rabitatu wasulatu rubbo fukki daayira ak juróom yoo xam ni mboolem xew-xew Sëñ Tuubaa ñoo koy bokk mm. te biñ ci gën a yitteel nag mooy màggal Tuubaa gi ndax ñoom ñii fa ñu bokk ñu ngi ko tuddee fédération di sabar ñoom lañ seen seen fédération fii nii tudd daayira Touba Milano Sëriñ Motoda mm-hmm. moom mooy joxe ndigal la mm. te sëñ Moussa ci biir leeral bi da ngay dégg mu ni sëriñ bi moo génne addiya ja joxe ko daal ni ba tey nga bàyyi ma jëndal leen ko mm-hmm. sëñ bi sant Diop mm. sëñ bi Alaaji Yande Diop Alaaji ni ko Mbàkke tey nga leen ñaana rek ñoom ñu mun ko fàgg sëñ bi am lu mu làmb génn jox leen loolu moom lañ def sas bi muy cinq cent dix mille lire buñ ko arrondir mu toll ci trois cent trois cent euros kon kër sëñ Tuubaa gi noonu demee xam naa nag ginnaaw jotaay bi xam na mu ngi jégalu baax sëñ Ibrahima Ndiaye mii moom moo yor kàddu bi ñu ko doon dugg rek bismillah sëñ Ibrahima macha allah asalaamaaleykum wa Cheikh Abdou Samad Mbacke moom Serigne Chouaïbou Mbacke ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare di ñaan suñu borom yàggal la ci suñu kanam ci barkab Cheikhul Khadim di jiital ci nuyoo bi nag ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke ñaan suñu borom yàggal ko fi di saf kàddu yi rek xam naa fi sëñ Ahmed daanele mel na ni eh, li ëppan ci liggéey bi tënk na ko kon ñu ngi yëkkati sunuy kàddu rek ci turu. jëwri yi nga xam ne ñoo yore liggéey bi muy sëñ Moustapha Mbacke ak sëriñ Moussa Jenn mi toog ak baydaam mi nga xam ne mooy jëwriñ liggéey bi kàddu yi nag e, kàddu yi sant la rek ak ñaan kon xam naa diñ koy barkeeloo rek ci li sëriñ bi waxan ci la Matlabul Fawzayni na maqsatul xasida addu'a wa shukru kon mel na ni li ci jëkk rek mooy ñaan suñ borom yàggal leen fi suñ kanam ndax seen ak nekk fi ak seen ab jataay njariñ la ci nun rawante na ku mel ni yow na nga xam ne waxtu wu ne ñu ngi lay diglu say wax di gis sa jëf muy jëf jun mën a roy ak wax jun mën a topp loolu nag daanaka ku ko sa kilifa yoreel kon la see sa rek mooy ñaanal ko mu yàgg fi kon xañ na kàddu yi mën naa bañ a gudd ndax jataa bi yàgg na te fii day kër Serigne Touba kër Serigne Touba nag bu fi Serigne Touba teewee kàddu ko la ak tere ko lépp ci loxoom lay nekk kon li ci sunu wàll rek mooy sam an wa mooy ba sa kàddu daanoo rek nga ñaanal ñu jëfe topp ca kon euh, sant gi nag mooy xam gi nga xam ne fii kër sëriñ bi la ngir nungul lu nekk fi ndax kër sëñ Tuubaa eh, nekk fa ab cër la kon nag loolu ku ko bàyyi sa loxo bu boroom ñuy war nga ko seeral sa cant ndax barab yaatu na bari na waaye ñun fii lan tànn muy suñ lépp kon nag buy yaatalee ban man fee nekk amunu si nag pay amunu si nag cant ndax moo nu gën a lépp nag àddina ak li ci kaw boo ko boole woon benn barab bi moo nu ko gënal kon nag ñu ngi sant bu baax li des nag mooy nga ñaanal nu yiire jiñ ci am suñu borom defal na ci tawféex ba man koo eggale mbokki taalibe yi itam ñu gën a jàppaat kër gi gën a jàppaat barab bi xam ne fii mooy kër Sëriñ Tuubaa kilifa gu fi ñëw fii leen fii leen fii leen fii leen koy siyaare kon nag ñu gën koy jàppaat alxames jii nga xam ne itam sëriñ bi moo ci joxe woon ndigal alxames bu jot rek na ngeen xam ne kilifa dina fi ñëw ndax kilifa gi mooy borom barab bi moom du fi jóg kon ku koy jëmmal na xëy na mooy kilifa yi waaye jëmmi borom barab moom waxtu mu ngi fi kon nañ jàpp ne alxames ju ne war nañ fi man di daje di dundal kër gi ci jàng alxuraan te jàng xasida dibéer itam ko saalika ak yeneen bi yi nga xam ne yëpp moo ci topp kon xam naa kàdd gi ni ma ko waxan rek mën naa bañ a gudd ndax lépp it sant la rek sant moom du weesu sant te say moom boo xasee toog moom <laughs> kenn ku ne xam na say kàddu moo gën a jotale gën a matale kon daanaka moom duñ koy tënk foofu rek waaw di di fiddiliwaat ñaan gi rek waaw di fiddiliwaat ñaan gi bu baax ndax say taxawaay ci màggal gi ci ci ci koor gi ci waxtu yëpp rek waaw te lépp ak sant la ba ci yaatal gi ngay def ci këri kilifa yi at bu ne nga waxtaani kilifa mu doon ab soññee e, ba ci ren nga xam ne bokk na ci doon mooy Cheikh Babacar ñu ko doon waxtaani nga xam ne ci koor gi <laughs> loolu itam loolu lépp ak yaatal la rek sax mbaax la kon ñu ngi ñaan daal suñu borom gën laa taxaw gën noo taxaw ñun ñëpp ban am ngërëmal sëriñ bi xam naa kàddu yi sax ni ko kilifa yi waxe woon gën naa matale gën naa jot waaye nag xam naa ñu ñu tënk ko foofu rek ci barke xëy xëy waaw waaw comme xam naa eh, eh, li sëñ Ahmed wax rek mooy xam nga fii fii Milan ak fédération Rabatul Wasila Tourbon su màggal ak Touba ñëwee diñuy jël barab yu yaatu yoo xam ne daanaka mën naa ne ay junne junne ni ñoo fay daje nga xam ne li ñu ciy daan ay 30 000 euros jëm 40 000 euros ren nag ñu ngi ci wàccaay daaw nag xattan na waaye tiwut amal nañ barab reneen ñi ngi sàkku barab waaye dafa mel ni eh, xañ na ak seegut waaye jàpp na ne moom bu ngeen ci ñaanee nag dina am fu gën a mérite ndax màggal gi moom mooy suñu lépp ndax weer wu ne dina daje fii ci kër Sëñ Tuubaa gi dimanche ba ci mujj waxtaane màggal gi dajal suñuy addiya ndax bu màggal jàllee rek ci leen koy tàmbali ba màggal gi dellusiwaat kon loolu itam nga ñaanal lu ci ba ba ba moom gën a yaatu ci barkeb Sëñ Tuubaa ñu am barab bu yaatu xam naa <laughs> jërëjëf sëñ daanaka liñ ciy dolli moom sëñ bi amut solo ndax sëñ Ibrahima wax loolu lépp waaye Ahmed dafa am lu mu kàddu yu mu jàtt mooy jamono bi fi sëñ bi ñëw ñuy sàkku barab bi booba de yaatu woon na lool waaye léegi nag mel na ne xaw naa xat xanaa ñu sàkku rek nga ñaanoon ñu mën a am fu gën a yaatu ba bëgg lépp ñu di ko def foofu yaakaar naa loolu <laughs> sëñ Ibrahima waaw li ñu niseer yi ndeysaan baax am kon nag xam naa ni dafa am loo xam moom faaw ñu koy faaw faaw ñu koy béral mbokk taal bi ñu koy ñu koy dégg kër sëñ Tuubaa gi ni ko sëñ Ibrahima Ndiaye waxee léegi weer wu nekk dimanche bi mujj ci weer wi fii la ñuy daje tuddi ko wàccaay màggal boobaak léegi ne am nay at ndax ca jamonoy Cheikh Salim Mbacke wala ba ba ba ba sunu jëm jaay tey jii di ñaan yàlla mu yàgg lool lañ fa diggee woon nag mooy murit bu ne ab gàtt war na la ci màggal gi ñu tuddi ko gàtt màggal ñu xayma woon ko ci 100 ci biir ci biir soññe bi am na ñu joxe 100 euros am na joxe 1000 euros sëriñ bi daf ko dégg rek mu génne sangaram joxe kon nag ginnaaw moom moo joxe lii te lépp ñu war ko defal moom am na foo xam ne kenn du fa yegg kon junj dooy na baram xel te sëñ Tuubaa seede na ni man lii rek ma doon sama yitte te wallaahi azim gisoon naa lii xamoon naa ne sëñ bi nga waxee dina joxe barke sëñ Tuubaa lu ma yëg la man wóor na sëñ Tuubaa xamoo naa ne bu déggee màggal gi rek dina am lu mu joxe sëñ bi maa ngi jégalu baax kàddu yi nga wax dafa matal sëkk waaye dafa am loo xam it maanaam ta diggante taalibe ak sëriñam ndax danga naan sëriñ Abdou Samad ni Cheikh Soin bi ni sëriñ Touba te ni ko sëriñ Ibrahima Ndiaye waxee léegi sëriñ bi lii may wax nag jubluma ma ci dara dama bëgg rek ñun ñëpp ñu xam ni dañoo war a jariñu ndax bi ñu defee vidéo ba léegi di soññ mbokk taalibe bi ci ci alxames ji yàggut waaye sama maas gii xam nga man toog naa ay weer ñëw ma li ko waral mooy fi ma dëkk moo sore li ma dal moo dal ñu bare kon soññee bi am na lu mu jur waaye ñëw moom am na lu mu jur ndax daara ji gëj naa mel nii kon dëgg la nag dëgg la Mbàkke sëñ Tuubaa lañ gëm sëñ Tuubaa dong lañ yaakaar waaye nag am na loo liggéey ci yoon wi ba tax na ku dégg foo ne mu ñëw siyaarsi la loolu nag cër la bu la sëñ Tuubaa defal boo xam ni lu la sa lu la say waajur fàggul la waaye nag Mbàkke am na loo liggéey li nga liggéey ñëpp teg seen bët bokk na ci li ñu gën a yitteel mooy fi nga teg Cheikh Modou Mountakha barke sëñ Tuubaa maanaam sëñ Mountakha sëñ Tuubaa gi moom kenn werante ko waaye taalibe gi dafa diis ba yow day day nëb lu bare taali bi gis nañ Muntaxa di wane dafa diis ba doo gis la nekk ci ginnaaw yow nag saa yoo toog ak moom wax ci moom loo xam ne murid bi ne bëgg na ko wax xamal ko li mu doon ak fi mu doon ak lim ñu mën a jariñ te loolu yaa ngi koy xam di ko wax di ko jëfe ñëpp teg seen bët te ñëpp di ci jariñ boo amee kilifa goo xam ne nag xam na ni Sëñ Tuubaa am na njariñ te saa su ne mu yëkkati wax ko ñëpp di ko dégg bu toogee war nga ko sant war nga ko gërëm te ñaanal ko fanam gudd lool te li ngay liggéey sëñ Tuubaa yàlla na ko sëñ Tuubaa nagul ci barke sëñ soo mi nga ànd ko ak julli yëpp fi nga teg Cheikh Modou Mountakha ñëpp bëgg nañ ci seen ànd boobu yàlla na yàgg ci dara sëñ Tuubaa ak ak Mbàkke màggal maa ngi tuub nag Mbàkke ndax lii kenn santuma ko waaye màggal gii nga jëf rek moo tax lii maa ngi jégalu baax Mbàkke salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki taalibe yi maa ngi leen di ziyaare kenn ku nekk di la ñaanal jàmmi àddina ak jàmmi alaaxira di sàkku sunu kilifa gi toog sëñ Abdou Samad Mbàkke ibnu sëriñ Chouhaïbou Mbàkke ku ko mës la gisit mës nga koo dégg baa nga gis ko ci média yi liggéey bi muy liggéeyal maamam ak fi mu teg tànkam ku nekk gis na ko maa ngi sàkku ci mbooloo mi fi teew ak vidéo bi bis buñ ko jàllalee fu mu man di àkke ji ku ko dégg na nga ne sëriñ Abdou Samad Mbakke yàlla na fi yàgg ca wér yàlla na ko fi yàlla bàyyeel sagu yoon wi la Mbakke yàlla na fi yàgg ca wér